asalaamaaleykum mbooloo bi wala asalaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di ziar di leen di ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan Lamyn TV di leen di jaajëfal bu baax a baax tey ñu ñëwoon Diofior comme ni ñu ko defee ci gaay yo ñëwoon lamb moo fi amoon mais lamb bi mu ngi am ay problème administratif léegi nag ki nga xamante ne moom mooy Mbaye Ndour waroon mooy lamb bi def na déplacement jóge Dakar xaw ma ko après loolu yëpp moom la décision ñëw wéy si lamb bi lamb bi mujjul am moom lañ toogee ñu bëggoon xam moom ban réaction la am ci lamb bi nga xamante ne mujjul am suñu yaay mbayaloon ak sa groupe yëpp mu ngi leen di ziar loolu. waaw fay naa leen waa Lamyn TV euh, ziar ñëpp ziar waa Jokal dëkk moom ba ci biir ziar comme dëkk bi ziar kilifa yi di ñaanal ñëpp jàmm si ñoom yàlla def jàmm si suñu réew si jàmm fi dëkk bi jàmm rek moo si xëj dana xëj fi lu dul jàmm dana yàlla defal jàmm defal ñu sutura ak tawfeex donc comme ni nga ko waxee boo duggee si dëkk bi da ngay nuyu wax na dëgg ñu nuyu waa Diop yooyu yëpp di leen di bëggee ñoom ñëpp plus particulièrement nag man damay nuyu waa kër Baye Moussa Ngingue waaw waa kër ga yëpp maa leen di bëgg di leen di ziar waaw léegi yéen fan ngeen jóge Dakar wala kër Barba wala gàmm sax ndax temps yéen a ngi woon gàmm fan ngeen jógee. waaw temps yi ñu ngi woon gàmm mais man ci àll bi sax laa jógee. parce que mm-hmm. amoo bëri woon ceeb ñi ñeneen ñu jóge seen dëkk yi xam nga. waaye mm-hmm. loolu rek ñëw daje si fii. Mm-hmm. léegi ngeen ñëwoon tey gars yi waa Diofior namul lamb Sénégal namul lamb mu nekkoon premier lamb bi nga xamante moo naroon tegu fii ci zone bi lamb di mujjee échec ngeen ñëwoon nan ngeen waajalee woon lamb bi. ni ñu ko waajalee woon comme ni ñuy waajalee lamb bi dañ ko waajalee woon rek. mais nag comme ouverture la woon. waajo nañ ci lu extraordinaire nee na jaam ak euh, pexeem yàlla ak dogalam suñ borom mooy dogal teg ko aussi si loxo suñ borom la lii wax ji lu mu bëri bëri bëri rek maa teg na suñ borom la rek mais yàlla bu waxoon si mun mais nag damaa jàpp ne suñ borom moo moo dagg yite yi rek moo dagg affaire yi dañ ko sant yàlla bu baax a baax a baax parce que làmb ji mënoon na tëgg leneen am ko loo xam ne duñ ko bëgg ñun ñëpp mais nag yal na yàlla def jàmm def sutura loolu nag deesul si ñun non que dem nañ làmb bu nekk làmb bu dul làmb dina sax dem nañ fa kon nag lii miin nañ ko ci làmb làmb moom booy dem bañ ko perte la rek am suwaat mu bañ am dañ doon ñaan yàlla nag mu am mais nag comme amul fi suñ borom la jaar pour sant bu baax a baax mais tey Mbayang moom yaakaaroon ne lamb ji waroon naa mën a am peut-être parce que dañu waxoon ne le 19 la état d'urgence bi wala état de catastrophe sanitaire bi di deñ donc yaakaar nañ ne le 20 lépp war nañ war naa mën a commencé waat léegi lamb bi ñëw nañ ba fii amul yow foo jàpp ne affaire yi foofu la waa waa waa préfecture ñoo waroon bàyyi lamb ji wala ñi nga xamante ne ñu organiser lamb ji aussi est-ce que affaire bi nekkul ci ñoom. mais man damaa jàpp ne mhm. bi fa la gën a te ñoom dañuy tëgg suba. kon ñoom mënoon nañoo tëgg parce que loo gis rek négociation la mhm. nit ñi nag yàlla lañ mën mais boo ñaanee ñi nga ñaan mayuñ la mënoo forcer mais nag gars yi nañ xam ne nit ñi ñoo leen fal askan bi ñoo leen fal doomu aadama ñoo leen yi ñooy falaate mhm. jeunes yi ku ñu falul doonee parce que jeunes yi ñoo ëpp Sénégal fi mu nekk nii. dëkk bi nag boo fi nekkee bëgg lu neex jeunes yi da ngay am lu la neex mais boo fi nekkee bëgg nakari naqari jeunes yi doo am lu la neex loolu rek laa laa xam comme Dakar moo gën a rëy Dakar dañu tëgg suba mënoon nañu bàyyi rek kaay tëgg parce que nit ñi dañoo financé seen xaalis parce que wàccaay laa bu neexul di nga gas di nga def lu nekk te loolu yëpp da ngay fay sa xaalis mais nag benn jour bi tey wàññiwul dara ñu tëggoon ko te ñu arrangé parce que Diofior lépp benn la ñoom ñi ko bokk dëkk bi dëkk bi warul am xaaj yi warul am seen défaillant yi lañu war a bàyyi défaillant dafa am si dëkk bi. dëkk yi sax laay wax dëkk boo dem am na ay défaillant. loolu nag lañu war a bàyyi ay boole waate lu kenn xamul fii benn dëkk la benn lakk moo fi ne. Mm-hmm. ñii lakkuñu ay njaago ñii lakkuñu ay lu kenn xamul benn benn lakk moo fi ne muy séeréer mm-hmm. kon nañ bëggante. Mm-hmm. nañ bëggante bàyyi xañante bi. doomu aadama gi nga yàlla moo ko sàkk yàllaa ñu mun a xañ kenn mun ta kenn kon nañ gëm ne yàllaa fi nekk ku ñëw organiser sa làmb def si saxaar xaar parce que fan yëpp ñu ngi waaj làmb bi ñuy dégg toog ba tey tey tey nanaan làmb bi mun a nekk kon daa am mu muy nirool daa am lu muy nirool nañ bàyyi loolu waaw donc yow da nga jàpp ne préfet waa waa préfecture war nañu mën a bàyyi lamb. war nañu mën a bàyyi lamb ñoo nañ bàyyi ñii a bàyyi lamb ji parce que Dakar moo gën a fort day boole ma la wax de. di mhm. nekk Dakar nekku fii di nekk Dakar nekku fi man fi dëkk. Mhm. te terewul Dakar day tëdd. bàyyi nañu ñu tëdd lamb foo la rek. peut-être lañ siy gagné bëriwul mais fola te suñ cosaan la suñ culture la loolu lañ xam xamuñu leneen lamb lañ xam xamuñu vion violence xamuñu xee xamuñu xuloo lamb lañ xam séeréer lamb la xam kon nañu bàyyi ñu tëgg te yàlla tax nañu bàyyi lamb yi defe ay na foo dem la rek defe ay foo dem am na ay defe am lool la rek parce que lii ñii dañuy waxee fii ñuy waxee fee mais mën nañ lañ bàyyi lamb ji tëgg jàmm nañ waaw amoon na benn woy boo si woyoon maak faafe xaw ma naka fa dem bu katoo. maak faafe fa dem bu katoo rañeetaay fa ah, mm-hmm. haji arfa sere. ndeysaan <laughs> ah waaw ñu leen daa defal moom. nañ bàyyi gars yi nee na ñu bàyyi gars yi. man damaa xiif xaalis sama morom xiif xaalis séeréer yi ah ba na am waaw non daa mel ni séeréer yi kese. laa wax man. waaw si séeréer yi laa gën. séeréer laa. waaw séeréer laay woy sama morom séeréer lay woy. parce que ñeneen ñi ñeneen ñi am nañ ay ay kii de olof yi. waaw woy am ko la taxaw. mais ñun ko ñu taxaw ñu ngi lañ am ñu bëgg ñëw ñu bëgg ñëw xañ nañ ñu bàyyi ñu liggéey li nekk ginnaaw dafa bëri donc tey bu ñu bu ñu jógee ci lamb ji nga xamante ne annulé nañ ko dañ lay laaj situation dëkk bi pendant un an yéen ngeen nekk ay artistes mënoo leen def seen activité mënoo leen wëy situation boobu noonu ci un an boobu ngeen ko lan ngeen ko dundee bi. mais sant yàlla bu baax rek. di leen du yàlla xam rek dina si dugal dara. fi mu nekk nii ñun bu ñu liggéeyee suñu biir yi la suñu yaram yi. wala ñuy liggéeyal parce que loolu lañ fi amee. mais nag sant nañ yàlla bu baax. parce que passé na si jàmm. bu ñu woon ay làmb bu ñu woon ay xew. yàlla nag lu tëj bu ñu fenêtre wàccee réew yàlla kese kese la waxu doom amul keneen yàlla sutural nañu parce que gis nañ mu dem Gambie def fa loo xamante ne dafa rëy waa Gambie yëpp kontaan mu gis mu am fa xaalis bu bëri vidéo boobu yaakaar naa ni seetaan nañ ko xaalis bu bëree bëri ba ñu may ko fa benn parfum village bi waa affaire yooyu ba may ko oto mais loolu mayam lan la ko dundee oto bi may gàmm ak noonu loolu ma ko dundee gis nga nit kuy liggéey ku nekk da si séntu dara man damaa gëm ne te lu raw loolu dinaa ko am incha allah bu ñu yàlla bàyyi parce que yàlla mooy may nit nag saabu dul fot boppam mais man damaa gëm sama bopp te suma xol dafa ses ma gëm sama bopp dama xaar kenn waxal ma ko man dama gëm sama bopp gëm li may def sama xol daa sa loolu ma daray kiñaan si doomu aadama te loolu dañuy naan julit mooy am xol bu laab man sama xol laab kon li si kanam raw li moom war naa mën a am leneen lu doom ñu ko yàlla bàyyi parce que yàlla mooy may maa ngi ñaan yàlla mooy mu passé donc loolu nag la nga xamante ne ñu ngi lay wax ñu ngi lay wax ba ñu may laaj Iya, kemana? Mbak Dinung, dia ada. Bawa aku, kita lama nunggu, dạ được em em